ci baaxoo di teewlu xibaaru Bambouk dal leen a jàmm ci seen tënkum xabaaru bés bi nga xam ne moo jiite conseil départemental bu Koungheul di madame Dione Socé Diop daal doon nay amal ab ndaje ngir séddale askan wi nekk ci département bi yëpp lum duppee li nga xam ne mooy suukaru koor loolu nag ci fàttali ñu ngi ko def ci budget bi gannaaw ba nga xamee ne jël nañ en compte li nga xam ne mooy yenn jafe-jafe euh, population bi nekk ci département bi ngir ñu mën leen dimbale. Euh, ci loolu nag 60 euh, conseils yi nga xam ne yëpp daal dinañ leen euh, fal ci conseil départemental bi ñëpp daal dinañ ànd ci ndogal loolu ba pare daal di koy accompagner ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def ci loolu nag nu ay tonni ceeb ak suukar daal dinañ koy séddale moo xam ñi nekk ci euh, commune bu Koungheul wala yeneen neuf huit communes yi nekk ci département bi yëpp gannaaw ba nga xamee ne euh, daal dinañ teg ay commission yoo xam ne ñoom ñooy daal di euh, chargé wu li nga xam ne mooy séddale moo xam muy ceeb bi wala suukar bi Euh, ci loolu nag euh, ci comité yooyu mun nañ cee lim ki nga xam ne mooy euh, délégué de quartier bi ak ñi nga xam ne ñooy conseiller te nekk si quartier bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci organisation de famille handicapé yi ba ci organisation yi nga xam ne ñoo ëmb jigéen ñi nga xam ne seen borom kër dañoo génn àdduna ñoom ñëpp daal dinañ leen teg ngir que ñu gën a yombal waaye tamit li nga xam ne mooy séddale bi mën a jaar yoon gannaaw loolu ñaaddu ci ndogu bi nga xam ne daal doon nañ ko amal fii ci euh, kër gi gannaaw ba nga xamee ne les amis de xibaaru Bambuk muy ay xarit yu dajaloo nekk di toog fii ci euh, kër gi di fi naane ataay ak yeneen ak yeneen daal doon gis ne war nañoo mun a dajewaat ni ki koor gi daal di defar ndogu woo ñi nga xam ne daan nañ fi nekk ñu daal di dundaal li nga xam ne moom lañ doon dund balaa koor gi di ñëw loolu nag mu ngi am ci euh, euh, initiative ki nga xam ne mooy El Hadj Ibra ak Demba Ndimbalaan ñoo ko daal di dox gannaaw ba ñu wooyee ñi nga xam ne daal danañ fi toog ñoom ñëpp ñu daal di ñëw euh, ni ki sam ni ki dimanche bi toog bokk ndog ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi mu doonoon lu am solo loo xam ne gis nañ ci teewaay tamit ki nga xam ne mooy Père El Hadj nekk responsable politique fii ci kër gi ñëwoon présider li nga xam ne mooy ndaje bi ci loolu nag daal dina yëkkati kàddu daal di xam ne ne jamono ji xibaaru Bambey nekk na média boo xam ne bu am solo la te ñëpp dañ koy bàyyi xel te xibaar yi nga xam ne da koy joxe dafay dem ba au niveau de la présidence loolu dara lu warul ko lu dul ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, site bi euh, xarañ seen teef ak jàng bi nga xam ne jàng nañ ko li nga xam ne mooy métier bi. gannaaw loolu ki nga xam ne nag moo jiite kër gi daal dinay témoigné noonu la li waral lii mooy xibaaru bambuk du ñu fi nekk di liggéey waaye Koungheul waaye ñoo ko moomal seen bopp gannaaw loolu ñaar di ci euh, daayira bi nga xam ne mooy kuréel Seydina Ousmane euh, bu Koungheul fas yéene amal euh, guddi maam Cheikh Ibra Fall ci collaboration jëwrin Balla Tom ni ki le 22 avril 2022 fële ca euh, terrain basket euh, bu Koungheul ci loolu nag ñoom ñu ngi woo ñëpp ñoo xam ne euh, ñu ngi yëngatu ci wàllu diine rawatina ñi nga xam ne bokk nañ ci daayira maam Cheikh Ibra boobu ñu ñëw teewee li nga xam ne mooy dajee boobu nga xam ne day tombé leelatu xadri ñoom ñu dëppee ko guddi maam Cheikh Ibrahima Fall ci loolu nag ñu ngi woo tamit autorité administrative yi locale yi ba ci religieuses yi nekk ci dëkk bi ak politique ñu teewee li nga xam ne ñooy jotaay ba daayira yi tamit am na ñu ci invité lu ci mel ne daayira sëñ Basiru Cissé daayira Cheikh Ndigal ak ñi nga xam ne ñooy daayira Cheikh Modou Kara ngir ñu ñëw jëmmal li nga xam ne mooy guddeeg maam Cheikh Ibrahima Fall bi war a am le 22 avril 2022. ci actualité nationale bi nag ki nga xam ne mooy activiste bi di Guy Marius daal dinay xamal ne. Euh, fas yéene na samp euh, ndëndam ci candidature euh, li nga xam ne mooy yeewi askan wi fële ca Ziguinchor loolu nag mu ngi xam leen ne dina dem ci bannière maanaam ci ginnaaw ki nga xam ne mooy parti bi nga xam ne mooy euh, Pastef loolu na li ko waral mooy xeex bi nga xam ne yàgg nañ ko def muy ñaar fukki at yu xeex yoo xam ne daal dina koy amal ci mbedd mi euh, mu am ci ay ndam am ci ay défaite mais mu ne jot na nag jamono ji mu daal di koy dugal fële ca assemblée nationale euh, gannaaw loolu tamit daal dina xam leen ne élection législative yi ñi dem dafa adam solo solo soo xam ne daal dinay décider jàppale coalition bi nga xam ne moom fa la ànd te yàgg naa woon nit ñi ngir ñu votel ko muy yeewe askan bi waaye nar faa demee eh, parti bi nga xam ne moom la jàpp ne jamono yi mooy parti bu ëpp solo muy passé ci la fa yéenee samp ndëndam di xaar nag ndigal yeewe askan bi pour ñu mën ko eh, valider. lii lañ leen indiloon ci seen eh, tënkum xabaar ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.